laylatu mawlidi nabi laylatu mahwi riyabi laylatu mahwi taabi wa turidi taatumi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi àddina wërgal ñu ngi leen di siyaare di leen nuyoo ci dëkk bu sell bi di Taif Mbacké tey jii di bisub gàmmu dëppoog altine fukki fan ak juróom ñett ci weeru octobre 2021 waaye dëppoog fukki fan ak benn ci weeru gàmmu 1443 caati gàddaay gi mu mel ni bis biñ doon xaar booba tey doon ko yëgle doon ko waajal yegsi na kon nag Ahibahil Khadim TV nekk fi ci dëkk bu sell bi fas yéene fay def rapportage lépp loo xam ne si ni xew na fi ñu fas leen ko yéene digtal foo waay mën nekk ci àddina bi ci Sénégal ci bitib Sénégal Europe ba Asie na toog te xam ne incha allah lépp lu fi xew da ngeen ko jot en direct leen li ay reportage lay doon leen li ay ay direct lay doon li ci des fépp fu taalib ma a nekk rek fas nañ ko yéenee dégtal incha allah bis bi nag nañ ko waxee woon démb rek bis bu sell la boo xam ne si ni mooy bisu ngeen ji mbindeef sallallahu alayhi wa sallam di muhammad rasulullah bis bii ci la feeñoon bis bii ci la sëñ doon sëñ Tuubaa doon waxee sota ayna wulida xayru nabiyin qad bada salla ali man hada fuaadu bil hikam na nuurun azimun qad yara bi qusuura qaysara man kaana fi ummil xura makkata xayrul aram guddi gii mooy laylatu mawlid nabi laylatu mahwiriya bi laylatu mahwi taabi wa turisi tahsumi guddi gi ci la Sëriñ Tuubaa doon waxee fa man yuhassi mawlida xayril baraya ahmada faka shahidin shahida badran bi xayri wahami kon guddi la koo xam si ni ku ko dundal ci ni nga ko war a dundalee mel nga ni ku teewoon badar te badar nag garaat bu rëy la boo xam ne si ni bokk na ci garaat yi gën a rëy ci sariya kon nañ ko fonk bu baax baax a baax bokki jullit yi fu ñu mën di jógee di ñëw fii ci Taif Mbacké nañ xam ne ñu ngi ñëw ci dëkk bu sell ci pàkk bu sell ci barab bi nga xam ne si ni mooy barabu Serigne Mouhamed Mbacké Serigne Mouhamed Mbacké soxna loo nga xam ne si ni moo fonde woon fii ñu nekk ñu koy wax sanc di dëkku dëkkub maamam Cheikh Mamadou Moustapha Al Karim sancoon ko ci circonstance yu metti ci 1930 wala ba 1939 lañ bëgg a wax mu sancoon ko ci bisub àllarba carré maanaam ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar dëppoo woon maanaam albay kare nga xam ne si kenn ku nekk da nga koy muslu di ci muslu di ci julli di ci def ay ñaan ngir yàlla musal la ci ayu bis boobu nga xam ne si ci la yàlla di wàcc mbay ayu at mi moom Cheikh Amadou Moustapha Karim ci yàlla ga ci la sant bis boobu loolu sëñ Tuubaa waxoon ne man zanna xayra la yox ni aw yusa fasaka fi daarin soo bii nga xam ni mooy dëkkam bi gën a siiw ci dëkk yi mu sanc te bokk sax ci dëkk yi mujj sanc ndax 1939 la ko sanc noonu ma ko waxee te sanc na Latif mi day bokk na ci dëkk yi mujj sanc waaye mooy dëkk bi gën a siiw ci yim sanc Cheikh Mouhamad Mbacke nekkoon fi ginnaaw boo xam ne seen sëñ Cheikh Mbacke dundal na ko waaye sëriñ Mouhamad Mbacke mooy ki nga xam si ni moo ko def nag moom la sëriñ Touba la sëriñ Mourou bi day la nekk ndar dana fi nekk te ku ñëw tay xam ne am na lu fi nekk loo xam si ni nekkul ndar kon loolu sëriñ Mouhamad Mbacke mooy ki ko dundal mu amoon yéene yi woote bi sub gàmm waaye xam nañ ne doomam ji Cheikh Mahamad Mbacke Cheikh Mahamadou Moustapha Moussa Mahamad Mbacke mooy ki ko dundal mu def ahibal xadim li na sa diin xawim nag woote nag ne ñaari bis yi day jox naa leen ko muy bis yi màgg ci seen bis na ngeen koy dundal muy koy dundal muy xisro na muharram di laylatu mawlid nabi sallallahu alayhi wa sallam ñaari bis yooyu di bis màgg boo xam si benn boo ci jël rek doon sëkk ak màggal ndax xisro na muharram nag ko maam ja waxee woon sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma ne woon képp koo xam ne si ni day sa sa sab xol muuru ko maanaam iñaan muur muur sa bëti xol xam nga ne bis di xasri muharram mooy bis bi gën a yaayoo ci ñu koy màggal ci bis bu moom sëñ Cheikh Mbacke dajoon ci lu nekk fenn fu nekk mu wuy ji ngir dundal bis boobu nga xam ne bu toon ak Cheikh Gaynde Fatma day bis boobu dañ naan rek daan ko màggal waaye moo ko dundal daj ci lu nekk ba tey ji ñu wéyal ko tey ji sëtam bi di Cheikh Mamadou Moustapha moom sëñ Mahamad Mbacke di ko dundal nu raw na ko maamam yi ak bàyyam yi la jëlee guddi gi di lay woote ko fii ci xar si képp ku fi ñëw de danga xam ne na ko Serigne Touba doon dundale ci njaareem loole rek la Cheikh Moustapha mi di woote. toog àndoon ak ñun ba asamaan set ñetti kuréel yi di jàng jës ba mu wax mu xadimaat ak barsan ji bi noonu rek la ko Serigne Touba daan dundale kon daal mbokki jullit yi fu ngeen mën di nekk ci àddina wërngal képp na ngeen xaar seen Ahibahil Khadim TV fu ngeen mën di nekk dañ leen ko jot jottali lii di xew ci Taïf incha allah kon ñu ngi leen jox dig daje rek ci kanam wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. laylatu mawlidi nabi laylatu mahwi riyabi laylatu ma witaabi wa turidi taasumi